ne ci tere bi yaay king kenn du la ñeme sas nañu la de daj nga fi lu bi yaay king kenn du la rabalil fasa nga ca kanam fasaraw bul nangu des ginnaaw ngor jom fiis fulla fayda kéwoo daw duru alba ngi yeah. masanga chakanam vasarau ulangu leskinau gorjom fis fulla faida kyobodau nuru albangiyo gaininjai gaininjai asangatrankanam fasarao olnangolaskinao marjamfis fulafaida kewodao nuru albangiyo waaw loolu moom pour ma wax si moom naa sawar trop ndax en fait début bi benn groupe de jeunes la woon ñu fi nekkoon mooy mu xaafut ñoom ñoo fi nekkoon doon entraîner tout le temps si terrain bi biñ demee ba euh, quelque temps ki fi nekkoon muy Mouhamed Sow di sama wóllëre moo ngi fii nii am naa temps moom liggéey moo ko téye bu mu demee ba amatul jot fekk temps yooyu maa ngi woon congé ma ñëw commencé jàpp di ànd ak booy di liggéey biñ demee di ànd nag si biir liggéey bi début bi nag difficile noonu trop mais avec euh, surtout ñoom les joueurs ndax su ma nee tey jii nii. Euh, su yombee su côté bii rek joueurs yaakaar naa ñoom ma ko yombalal ndax tey au moins ñoom am nañ écoute par rapport ak man sama idéologie au moins ñoom am nañ tey écoute ak par rapport ak sama idéologie ak man li ma bëgg sama diggante ak ñoom te yaakaar naa ne ba ñu commencé ànd ba léegi mosuñoo am réeroo kon je tiens à préciser nag ne tey lii su demee ba am c'est grâce à sélection Mokha Foot mo waral li am so gisé so xolé sax ñom ñoy junior yi ñom ñoy mujjé football pratiquement moy groupe bobu nonu mais néanmoins bi ma ñëwee yar groupe bi am na ñoo ay adhérents yo xam ñëw nañ participer ci bokk biñu déwé ba ci biir ma xam li mo commencé amna lu muy jur amna fu mu commencé ag mané comme man mom ma dama ñëwul rek ñu ne ma téel ma woo leen ñu tok ñun ñëpp réñu ma wax leen sama bëgg-bëgg par rapport

teewul dinañ ko jaayante dem indi ñëw jox ma te boobaa saa suñ ma joxee lépp lu ma si mën tamit man tamit dama si jéem dem indi ak wëllëre yi nekk si koñ bi partenaires yi nekk si sama gars yi di leen bëggee bu wér a wér ndax à chaque fois saa su méttee su ma si demee gis kenn wala ñaar nekko ko man kat actuellement booy dama am problème lii ak lii lii si ñoom ku ma ko sox danaa ma d'accord may ma deux jours su ne may ma deux jours le lendemain su ñëwee

maanaam benn kàddu la su ma jugee tey ne leen suba semaine bi kenn du entraîné man lu wóor la ma mën naa génn koñ bi dem xam naa ne terrain boobu noonu ñeneen ñi fi ñoo entraîné mais pas ñoom kon moo tax ma ne jafewul maanaam benn kàddu bi ndax à chaque fois su ma waxee dinañ dégg la ma wax te tamit su ma leen amee proposition lu may wax si ñoom tamit à chaque fois dañ koy rafetlu jéem si taxaw nag jàpp si. fii catégorie am na catégorie U9 am na u am na U15 am na U17 ak U20. waaw justement Bécaye nag foofu dina di nga may foofu ma leeral fa tuuti na xoola soo xoolee zone bi ñu dëkkee nii benn zone défavorisée la sànq bi nga ñëw sax maa ngi ko expliqué soo xoolee mbëbës moo ngi nii suñu ginnaaw tey li gën a yokk tey ma ñëw jéem a jàpp encadre surtout petite catégorie bi euh, période tabaski bi dañoo def constat si koñ bi bëri na ay xale yoo xam ne dañoo riir ndax ay équipe ñoo fi ñëw fii di football suñu paree ñu topp boo yooyu naan dañuy dem géej rek ñu jaaree fa amna na boy bo xamna pendant 3 jours koñ bi ñepp a ngi mobilisé di ko wër boobu nekkate ben équipe bu fi ñëw football ni rek dégg géeju Malika lañ Malika lañ dëkké rek mu top ci groupe bobu non pendant 3 jours ñukoy koy bima bi non kiiyee mané nak nak ma jéma récupérer catégorie bu ndaw bi ne leen di leen jël sen temps perdu yi ñuy def au moins nga xamné su suñ fi di entraîner duñu am temps pour génn dugg ci mbëbës bi wala ñuy dem géej wala ñuy dem ci àll beeg affaire yooyu noonu loolu waral petit catégorie bi non judd mais biñuy démarrer si U20 yi lañ démarré woon mooy maanaam sélection bi mais après si la petite catégorie bi judd après U13 et U15 yi ñëw waaw waaw waaw wax dëgg fa yàlla moom ñoo ngi si moom ñoo ngi ci euh, xam nga affaire kayit moom yombul mais teewul comme di remercier sunu père bi père Coco moom à chaque fois moom mooy teg si yoon di ma booleeg ay nit pour au moins euh, centre bi mu ko certifié mu am kayit te de boobu léegi maa ngi siy wax maa ngi si dox ay jéego mais xam naa ne dafa sotteegul mais nag wax dëgg fa yàlla ñoo ngi si.

mais téwul ñom ñom ñëpp xam nañ ko da wax na la ko ñu dégg ku mënul def résultat bu baax sa école Fi duma la accepter ndax bi may dem tamit da def tour sen parents yi tamit loolu laa leen expliqué ndax sport ak étude léegi instant yi ñooy ànd te ku mënul euh, te football bi du ñëpp a réussir da ngay jàng am say diplôme kon di football yàlla tudd nga euh, am chance si football bi nga dem amoo chance nga dem kon ne say étude am say liggéey ak affaire noonu mais football bi moom ak euh, jàng yi moom euh, ñoo and wa apparemment noonu Bécaye noonu loolu moom li nga wax mom deug la ndax fii place poste de santé la mais so xolé ñun tay ji ni jeune Kër Massar problème terrain lañu am problème terrain lañu am te loolu mom euh, je tiens à faire un appel si bonne volonté ci quartier bi wala délégué de quartier su fekké tamit amna espace public bo xamné réservé aux jeunes pour ñu au moins ñu jëm ñu ko teel a xamal ñu jëm a terrain bobu non, ndax tay terrain bi ni début bi.

moom au moins chaque semaine dina déggante mom déglu ay conseils tamit mooy jox ay perspectives dima am lu mooy proposé mais xamna nak nag dara sotteegul mais li wax rek wet en quoi yalla baxna na. waaw centre mom xam nga perspective lan la rek moy former de bons joueurs te di yakar rek ci groupe bi ni au moins ñu am fi sax ñaar professionnel ñoo xam au moins dina xam ne ñii kat ay doomu mel na Gana Sarr lañ wa quartier bi ñoo leen gérer ñoo leen tété yar leen ba ñu génn dem signer extérieur ndax boobaa loolu bis bu amee rek satisfaction wa quartier bi yeb la satisfaction ñu fi dëkk ñëpp la ndax boobaa tay duma di ndamoo naan ay man maa ko ndax dama naan gars ñun ñëpp ñoo si ñoo si jàpp. loolu la quoi di ñaan yàlla rek ndax fii moom kenn xamul suñu borom rek xam mais talent bi wax chaque jour rek bu li ngeen am talent bi moo ngi fi li des moom si loxoy yàlla la quoi mais ñoo ngi am di rafet njort rek jàpp ni su groupe bi minimum sa am à trois sax pourquoi pas plus. waaw message bi lan pour ñu jéem revenir à la base jàppale jeunesse bi ndax euh, melna na Gana sar moom du wax sax Kër Masar dama melna mel na Gana Sarr euh, képp kuy politicien wala ngay dem homme euh, homme politique affaire non biir Kër Masar fi ni ku ñu ne mel na Gana Sarr xam na ñom jeune melna Gana sar, ay jeunes dévoué lañ di wax rek di appel bi moy lenn rek ñu revenir à la base jàppale jeunesse bi ndax li yombul su ma la yombul man xam na ci dara ndax tay bi bëri na ñoo dañuy ñew nama ma dañoo bëgg a yaakaar ne dañuy fay ak affaire enoon te fii am na ñoo ngi nii su la neex nga jël micro bi jox kenn ku si nekk amul kenn koo xam ne ñëw na fi joxe 100 francs comme mooy mooy sa titre adhésion ku fi ñëw li ma lay proposé mooy lan entraînement yi heure bi la ñuy def entraînement heure bii lay jeex cotisation mayo lañ la laaj kese suñ demee ba am problème bal ñu ne dañuy def 300 300, pour ballon wala ñu ne 1000 francs, 1000 francs pour ballon amul benn condition d'adhésion di wax nag comme sa question rek pour nit ñi ñëw revenir à la base jàppale ñu te soxla nañ euh, ndimbal daal. ok message moom yaakaar naa du si kii ndax euh, euh, li ñuy wax rek jeunesse consciente tey yàlla dimbale na ma benn côté boo xam ne dama naan wax du ma wax sax ñii dama naan tey quartier bi man fu ma neex taxaw ne lu ma bëgg si nit ki su ma si waxtaanee dina ma ko defal na xam lu tax dama ni dama nekk si quartier bi.

di ziar ñoo bo ñun bokkal liggéey bi di ziar sunu njiit muy jaaj njaga la voilà njaga Guèye njaga Guèye waaw ma li ma nekk ci bi mooy en tant que yaakaar naa ne ma ci dirigeant yi la bokk et puis damay bokk ci équipe bi li ma tax a jóg ci côté équipe bi mooy ànd ak booy di leen wax fulla ak fayda di def ci ñoom jom xam ne dafa am lu ñu tax a jóg te li ñu tax a jóg yombul parce que wàññi boo gis benn lay commencé ci mbir moy def ci amul gëm-gëm ci amul ful ak fayda yaakar naane du dem nit ki lu muy def lu ne ci bëgg ko ci gëmu ko ci du dem ci loolu moma tax jog ma and ak boy nek ci wetu jaagne tamit nek dirigeant ci mom bu boy football yeen saay ma ne ci bir équipe bi di di def ci ñom loo xamni bo boo fu nu dem dina am yobbu dina yobbu éducation banen bi mooy yobbu jom yobbu fulo yobbu fayda parce que problème bi moy mbir mo gis amna lu la taxajuk comme li Diagne wax affaire bi nag yàlla waxul kenn dara parce que boo xoolee ñi ñuy gis ci tele muy Sadio Mané ku mel ni El Hadj Diouf ñu fi jaar kenn ku ne am na foo jaar li ko wane mooy dafa am loo gëmoon dafa am foo commencé mbir moo gis am na fulla am na fayda léegi nag loolu moo tax mu ànd ak booy di xeexal di xeex ci seen biir di leen jàppale def fulla ak fayda muy waa groupe Moukhafut la démarré woon waaw léegi ñoo leen ba fii ñu am leneen loo xam ne moo tax a jóg ñu ne dañuy changer bi. ñu ñëwee fii fulla ak fayda daal ak ànd ak jaañ ak liggéey moom parce que liggéey bi yombuloon début bi métti woon na comme ni mu koy waxoon mu xaafut la commencé am na suñ benn gaañan boo xam moo ko doon muy Mohamed mais dem na ba amadul temps ñu gérer équipe bi man jaañ ku mel ni Moussa Wurus mi ngi bi ku mel ni Pa Omar ku mel ni Maam Niass ñoom ñëpp ñu bokk ci groupe bi yombul ñu ñuy xeexle kon ñoom ñëpp la leen sant di leen gërëm di gërëm tamit booy yi parce que démarré bi yombuloon mais dafa am lu nu wan wan nu fulla wan nu fayda jox nu cër parce que mbir mo def ci amul cër yaakaar naa du dem ñu nek xalé yo xam neex na lo waxal lool depuis biñ ci duggé ba réccu wun ko di am contente ci ñom di leen wax ne affaire mi ngi nonu yoon la wo xamni da ngay xex da ngay am fulla am fayda moy tax egg fi nga jëm lool moma taxon taxoon ok. assalamualaikum warahmatullah gaay ma yi leen nuyu di leen siyaar bu baax man ma ngi tuddu Moussa Gueye ma ngi ñew fi ci centre bu ñu wax fitir Pro. nekk fi di entraîner ak suñu coach Diagne bon mu yor ñu fi ak yor bu rafet boo xamante ni si bu ngeen ma woowee pour mu wax dama ci kontaan sawar ci parce que li ñuy def nii ku nekk xam nañu ni si dara yomb ci Diagne nag day perte temps bu bëree bëri ci ñun fii pour euh, teg ñu ci yoon euh, te lépp nag ñu ngi koy gis bon kon bu ñu wax loowee dañ ciy sawar parce que jaañ moom nekk na benn grand boo xamante ni fii ci koñ bi comme ni mu waxoon sànq rek euh, football kese taxu ko jog am na yeneen ak yeneen yoo xamante ni si mi ngi koy jàpp ci koñ bi lépp pour ñëpp doon benn la bon xëy na football bi nag yàlla moo ko ci nat bu ko ci yàlla nattoo moo tax mu boole ko booy yu mel nii wante lépp mi ngi doxal ci booy pour bëgg ñu jëm kanam euh, ba tax na 16h la fi ñëw 16h 16h man damay toog sama kër geesu xool ko fekk ci terrain bi kon yooyu yëpp ñu nekk loo xamante ne si tey ji lañ amoon occasion man ak booy topp sama ginnaaw ñu sant ko gërëm ko ci parce que li muy def ñun ñëpp xam nañ lu yombul dañuy toog sax di ko jëw dañuy tok sax di jëw naan diw nangam nangam nangam yo xamanteni si yëpp ay ay lu bax la dal wax deug yalla kon nak mom limi def ñun gis nañ ko ñu koy sant di ci gërëm boy boy and ak jaañ tam ay boy boy cool lañ ay boy yu baax lañ parce que xeyna football la yalla nato euh gëm nañ ko fonk nañ ko te mën nañ ko itam motax ñu nekk ñom ci son di ci ray seen bop kon nak luma len def dara loolu di len ñaanal lolu yalla dimbal len ci li nga xamanteni si mom lañ japp bon yeen tam ñew bi ngeen ñew fi ni contane nañ ci torop kontaan nañ trop ndax yéen bi ngeen ñëw fii gis ngeen yoon bi ni mel fii sori na euh, ruqe na naqari naa ñëw ndax mbëbës baa ngi nii ci suñ côté kon nag yéen ñi ngeen def ba ñëw fi kontaan nañ ci trop wax dëgg yàlla di leen ñaanal yéen itam fi yàgg ànd ñun bu ko defee liggéeyam ñëpp ñu bokk mu jëm ci kanam di sant mm, sunu père Koko moom mi ngi fi moom itam tey fi la yendu ànd ak jaañ euh, jàppale booy ñoom itam ñu ngi santaal tam sunu grand yi nga xam ne ñoom lañ nekkal fii ci koñ bi ñoom itam dañuy dagg seen liggéey ñëw ci entraînement yi te bu ñëwee dañuy nekk ak ñun comme grand frère normal dañ ñuy teg ci yoon li nga xamante ne si moom la ñu entraîné di ko teg ci yoon ñoom grand itam ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm Diagne encore une fois ñu ngi ñaanal yow itam nga gudd fan loolu wax man waxi gars yi la gars yi dañoo ko wax ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram ak réussite li nga bëgg si sa xam yaa ko yàlla defal parce que sonn nga ci booy trop wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla sonn nga ci booy trop ñu may wax per koko ça m'a fait un grand plaisir parce que ba may doog a ñëw gis naa leen et ba ma leen gisee aussi ñu nekk ay xale yoo xam ne vraiment am nañu volonté te football liñ ci njëkk a d'abord mooy volonté parce que dafa am loo xam ne def ci am solo mooy assiduité mooy ngay teew bés bu ne ak lu ñuy wax ponctualité ñëw ca waxtu ba la soxlaa kon nag loolu loo ci liggéey rek da ko man di ko mokal ba ñëwé tamit ba leen gisee ñuy jouer j'ai vu que c'est des garçons yo xamné par rapport à leur volonté ku leen dimbali ñu dem bien vrai que nak gisoon naa ay manquement ay insuffisance yu bari ci ñom mais ba yalla défé ba ñëwé ba xamanté ak Diagne xamal n'a ko ni ni ni ni ni ni dañuy def amna ci yo xamné ne fekk na mu koy doxal baxna amna yo xamné ne aussi gis naa mu koy def baxna yalla def na aussi ñu xamanté xamal naa ko li ak li ak li mu def ko ba tax vraiment ya une progression yàlla na la fal chat euh lepp liñ ci bëgg yalla na leen ko yalla defal mais nak il faut que savoir que le football aussi ça s'inscrit dans la durée même si on peut anticiper dans une marge de progression ça s'inscrit dans la durée et que souhaitons que que ça soit dans la durée pour que ces garçons-là progressent. Non, je pense que vous l'avez déjà dit, patience, c'est tout. Patience, mon. bu amé tamit té ki nga xamné mom nga nekkal mu représenter sa di sa baay di éducateur té doxo ko cër bi nga ko wara jox té déglu woko do dem té dafa na ni euh yalla na yalla dafal na ni ils ont une certaine complicité avec ki nga xamné mo leen di encadrer parce que musuma ñew fi jamais mu ne li lii laay lay ñu tek ci bat musuma fi ñew jamais ñom ñu sak li ñuy liggéey mom moy ñew ak programme moy ñew ak fiche technique moy ñew ak ni ñi liggéeyee donc je pense que vraiment ils sont dans un très bon chemin dañ leen di ñaanal yalla yalla na yalla la fal cat ba li nga xamne mom moom bëgg ak mom aussi mom limu bëgg ci mom yalla defal ko ko.